waaw ba tax nag kéemaan la wax waxu xar baax waaw góor gi daan wax ne bi avion naaweeg léegi ne ku génnee te xar baax ñàkk fayda waaw ba tax na kon nag yitte yépp mi ngi ci teewlu caxi yàlla yi ak topp luy indi tontu la ni mu ko waxee ci alquran bu leen di di di lëññatu li ma def xam-xam dana ca yokkoo dana ca leere seen dënn dana ca ubbikoo sama digganteeg yéen dana ca jegeñe waaw mu dellu wax ni su ngeen jógee ngeen fexe bay faj seen aajo bopp ba bañu leen cay fekk waaw ba bañu leen cay fekk waxul ni ku jóg mana faj sa aajo waaye bu la ko kenn tàmbalil tàmbalil ko sa bopp waaw ku ca bokk si nag nga xam ne bokk na ci waaye sa fulla ak sa gëm sa borom ak sa xam sa daraja àgg na ci kenn du la ko tàmbalil waaw aha mata tax yonent bi ki solda matul ñu dimbile ko moo ko gënal ñu dimbilil ko miskin waaw moo ko gënal ñu dimbileel ko miskin ndax miskin yàlla defu ko miskin mee ko def waaw ko def dafa nanguwul a jóg yàlla defu ko miskin mee def yàlla ki am aajo la def waaw Uh-huh. moo tax yonent bi méthode am lu yéeme la mooy dafa nekkoon ci ñoo xam ni bu leen bañalee lépp rekk ñu bàyyi bu leen nangulee lépp ñu yàq maa ngi dikk yonent bi dafa nekkoon ak ñoo xam ni bu leen bañalee lépp ñu bàyyi bu leen nangulee lépp ñu yàq ñu tudd jaam mu ni waaw waaye sam borom nee nañu ko goreel benn ñu ni jigéen dafa doyadi mu ni waaw waaye sama borom neen naa ko teg li ma teg góor ñu ni sarax leen miskin mu ni waaw waaye ki aajoom të moo ëpp yool waaw mhm. Mhm. Mhm. xamuloo ni miskin mu ubbi cantine rek génn ci miskin waaw su ko defee li tax mu woote ci kaaraangeem moo di xamuloo ni yàlla amul na nawle waaye nag li mu gën a bëgg ci àdduna mooy xarit waaw amul nawle nag waaye bëgg nag xarit xarit nag jikkoog jikkoo koy sabab Uh-huh. waaw yàlla amul nawle waaye bëgg na xarit xarit nag jikkoog jikkoo koy sabab waaw ñaar ñu bokkul jikko du ñu ànd mukk waaw uh-huh. Uh-huh.